nag man sonorisation laa ci xamoon ak loué ay baas ak i chaise waaye léegi Macky Sall dafa ay nit Jurbel tey jii lay meeting Jurbel stade bi bu ngeen xoolee stade ba la fa nekk lépp ay jeunes la ñuy doon yoo xam ne dañ leen a loué man des centaines et des centaines de jeunes ñëw nañ ba ci man ne ma Assane man de dañ maa jox 3000 ak t bi waaye bul yaakaar ne ñoom laa àndal dañ maa jox 3000 ak t-shirt bi waaye bul yaakaar ne ñoom laa àndal donc dañ ma loué am na ci jeune ñoo xam ne ay mag lañ 5000 lañ leen jox ak t-shirt dañ leen a ay nit dañoo loué nit am na ci ñoo xam ne ay kaar lañ jële ji ci dëkk village yi ci région yi ay Louga ay Kaolack ay Fatick fépp dañoo loué ji ay nit kenn ku ci nekk ñu jox la junni ak t jox la sandwich boo añee wala ay ceeb pour nga feesalal ko stade Diourbel bi pour ñu mettre la pression pour wax ne Diourbel est derrière Macky Sall loolu c'est faux maa ngi leen koy xamal jeunes yu ci bari ñoo nañ ba ci man ne ma grand Assane soo ma gisee ca meeting ba de xamal ne dañ ma loué fay ma 5000 seen 5000 la dama koy lekk. Jakarta yi nee nañ ma carrément grand Assane euh, sama dañ maa fay man sama sama sama journée Jakarta 5000 jox ma t-shirt moo tax ma ànd ak ñoom di leen accompagner damay xumbal rek dama leen di xumbalal waaye gëw ma leen. na ngeen ko xam xam ne jeunes yi gëmuñu leen bu ngeen leen gisee ñu mobiliser une forte mobilisation au stade. na leen def ay reetaan man maa ngi nii jurbel maa ngi nii jurbel jumaa laa jóge léegi dugg si fii ne naa dugg leeral gaañi pour bu 17 heures di ngeen gis nit ñu bari ci stade ba nit ñooñu ngeen gis nag na ngeen xam ne junni la dañ leen luye tiset junni tiset junni tiset <laughs> ñaata ba 3000 francs loolu nag du mobilisation dara ñun xam nañ jikko Macky sàll xam nañ ay pexeem xam nañ li muy def ñun nag ci dëkk bi leen dëkk njaareem ñi am jom ñi ngi am jom ba tey ñi am seen ngor ñi ngi am seen ngor ba tey fii nit ñi newuñu fii pour di jaay seen ngor ku ci jaay sa ngor ndax ndax ndax ndax ndax 3000 wala nga jaay sa ngor ndax 5000 kooku yow sa affaire la. am na ci ñoo xam ne nag jaayuñu seen ngor dañ leen a luye rek <laughs> na ngeen leen nangu na ngeen ko xam dañ leen a luye comme dañ leen a luyee nag nañ leen leen jéggal ci loolu am na ci ñoo xam ne wallaay woo nañ ma ñi ñëw ba ci man ñi wan ma seeni tiset ne ma asan jox nañ ma tiset ak mille ñii ne ma jox nañ ma tiset ak mille waaye dañ ma luyee rek baal ma demal leen su ma yeggee sax bañ gis ma sax ma dëppaat ñibbi am na ci ñoo xam ne fi ñu doon ni bu ñu demee bañ gis leen rek ñu dëppaat ñibbi waaw noonu la demee nangeen ko xam ne Macky Sall amul dara Diourbel amul dara Touba amul dara ci Thiès Sénégal su Macky Sall la bëggee mu tàkk rek na jéem a foqati nguur gi Macky Sall la xam ne ne pare na man maa leen ko wax Macky Sall la leen gën a xam ne pare na ci nguur gi fecc yi muy fecc ak lii mu nekk di def nii yépp day dindi pression xam ne ne il a perdu sur la ligne ak sa Dakar Thiès Diourbel celui qui la perd perte nga élection yi te xam ngeen ne Macky Sall bu dee dakaar la Pape Diop Khalifa Sall euh, Ablaye Wade Idrissa Seck Malick Gakou xajuñu ci kaw Macky Sall Ndakaaru yéen leer na leen ñoo ñooñu xajuñu ci kawam Thiès kenn waxaalewu ko waxaale wu ko Idrissa Seck Hadjibou na Thierno Alassane Sall xajuñu ci kaw Macky Sall ci Thiès Touba kenn waxaale wu ko Touba kenn du votel Macky Sall kenn du ko votel jëm nañ lu ne nag jéem nañ lu ne ñi ngi jéem a déplacer ay électeurs ñu waroon a voté tuubaa ñu leen di yóbbu Dakar ak yooyu yëpp loolu yëpp ñuy jéem xam nga lu mu leen la xanaa jël bi néew wante Macky Sall premier tour day ñibbi day buub ay bagaasam na ngeen ko xam ngeen gëm ko bu ñu leen gëmloo ay sàcc bu ñu leen gëmloo dara waxuñu dëgg waxuñu dëgg de mënuñoo sàcc mënuñoo def dara ils ont perdu les élections ils le xam nañ ne ñàkk nañ élections yi léegi nag violence ak jéem a xëpp xuppaate ak jéem a sàcc mais ñun faale wuñu leen man maa ngi nii njaareem ak moom Macky Sall moo la gën a xam ne man faale wu ko maa ngi nii Jurbel gëmuma ko buñ ku ci am lenn loo ciy wax rek ñëwal nga wër ma man fii ci Jurbel Bawol gii laa dëkk ku ci am lenn looy wax ñëwal nga fekk ma fi ma nekk boobaa di nga xam ne dootoo ko dolli duñu nit yi dara maa ngi nii ak ñoom njaareem ay luye ay jeunes lañ fi nekkee luye ay booy du leen fay xaalis pour yóbbu leen ci estade bi jënd conscience lañ fi nekkee mais c'est pas une politique juróom-ñaari at ak nii Macky la ngi door a teg tànkam njaareem juróom-ñaari at ku gëm Jurbel dina taxaw di gëm lu mel nii. sept ans ngi nii sept ans laa wax 2012 ba tey Macky Sall mi ngi di doog a bëgg a teg tànkam Jurbel ah mais nit kooku yéen nit ñi topp ci moom toppe ko dara ñi topp ci moom seen i poche ak seen seen seen seen seen seen seen poste yi ñu leen jox moo tax ñu topp ko mais topp wuñ ko ndax gëm Jurbel gëmuñu Jurbel ndax réaliser wu fi dara c'est pas ay dañ ko bañ moo tax ñuy wax hôtel bi mu fi diggee woon mi ngi nii hôtel baa ngi nii eggul manège ngi nii en face maire yi dara yeggu ci tali yim commencé woon suulu na marché Ndoumbé Diop bi mu fi diggoon waa Diourbel yeggalewu ko deful ci dara waaw mais ku deful dara ci Diourbel naka la la waa Diourbel di teeroo ñay teeru Macky mooy ñi nga xam ne ñoom la fal ay militant am lañ ñi ci des mooy booy yi ñu loué dañ leen a loué booy yooyu ñu loué nag maa leen wax ne dem leen ngeen lekk seen xaalis lekk leen seen xaalis te voteel keneen ku la neex lekk leen seen xaalis yéen jigéen ñi xartum yi ñu leen jox ak 2000 francs lekk leen seen i mille ak seen xartum yi ngeen dem buñ leen gisee ngeen ñibbi loolu rek la na ngeen ko xam nag bumu leen jaaxal bumu leen tiital bumu leen bumu leen def dara na ngeen tranquille te continuer ci liggéey bi ngeen leen te xam ne Macky Sall pare na ci élection yi pare na pare na au premier tour man maa leen ko wax Macky Sall laa leen wax pare na au premier tour ñàkk na Touba ñàkk na Diourbel ñàkk na Thiès ñàkk na Ziguinchor na ngeen ko xam li ma leen wax nii Macky laax ñàkk na Touba di 700000 électeurs ñàkk na Thiès di 800000 électeurs muy 1 million 500 ñàkk na Dakar di 1 million 500 ci électeurs muy 3 millions ak Ziguinchor 400000 3 millions 400 millions yi Macky Sall perte na ko 50 pour cent électorat bi Macky Sall ñàkk na ko déjà kon kooku mënul gagné. day jéem a néewal pour jéem a dem deuxième tour mais premier tour la Macky Sall war a buub ay bagaasam buñ leen tiital buñ leen xoxatal buñ leen nax buñ leen jéem a def dara ñun fii leen dëkk fii lañu dëkk xam nañ bu baax li fi xew Jurbel ànduñu ak moom Jurbel ànduñu ak moom Jurbel waaye ànduma ànduñu ak ñoom waaw fii maaraabu amatu fi Omar Omar kan Omar ma ne la maaraabu amatu fi fii amul bu amul dara fii maaraabu boo fi doon boo fi waxee loo xamante ne bi nit ñi duñ ko def kenn du la faale kenn du ko def maaraabu boo doon nag boo fi waxee loo xam ne waroo ko wax kenn du ko def Macky Sall mënul toog sept ans tànkam Jurbel yow nga naan ay voté leen Macky Sall kenn du ko def kenn du ko def nit ñi nit ñi yow nañ fii dof amatu fi fii amatul dof na seen xel dal jóg leen ngeen sécuriser vote yi bu jouru élection yaa na ñëpp taxaw ci biro de vote yi na fa ñëpp taxaw bu fa kenn jóge maa ngi leen di woo yéen ñëpp yéen waa Sénégal partagé leen li laay war a sóoli message yi ngir askanu Sénégal xam ko jeunesse su Sénégal xam ko jeunesse su Pastef xam ko jeunesse su réew mi xam ko jeunesse su PUR xam ko nañ xam ne bu ñu voté ba pare nañ taxaw ci fu ci bureau de vote yi sécuriser vote yi jusqu'à la fin foqati élection jeex na fi Macky Sall bu bëggee foqati élection yi day taal Sénégal te man maa ngi appelé bépp jeune sénégalais élection yi Macky Sall bu ko foqatee instantanément ci région yi ci Sénégal gépp na réew mi tàkk man maa ko woote maa ko wax Macky Sall bu foqatee élection yi 93 lañ fi gëj a foqatee élection fii maître Babacar Seye dañ ko fi rey fii nit ñi yàgg nañoo xeex fii des dizaines et dizaines de personnes dee nañu ngir Sénégal kon du ñu nangu aujourd'hui yow nga perte sénégalais yi goxi la war na ginnaaw nga naan da ngay jëm a forcer élection yi naan da ngay déclarer ay 50 pour cent mënul am cinquante pour cent c'est pas vrai. def leen loolu ci seen bopp yi bu ñu leen jéem a defal lavage de cerveau wala ñu leen di jéem a wanaasu loolu mënta nekk. sénégalais yépp xam ne loolu mënta nekk au pire des cas li gën a néew ci Macky Sall mooy mu dem deuxième tour te man jàpp naa ne ak jàppandalu Ablaye Wade Macky Sall premier tour day buub ay bagaasam jàppandalu Ablaye Wade Macky Sall premier tour lay dem maa leen ko wax wallaahi Ablaye Wade su neutrul ci yëf yi ñëw dugg ci liggéey bi Macky Sall premier tour day buub ay bagaasam kon déclaration wu gagné naa moom au premier tour loolu fu mu ko waxee na xam ne Sénégal ñiy dund danañ dund ñiy dee danañ dee parce que Macky Sall gënuñu nag ah gënuñu nday gënuñu bàyyi gënuñoo gëm réew mi gënuñoo bëgg réew mi duñ fi nekk nag nekk ci réew mi comme moom investir ci réew mi comme moom nekk am xam-xam jàng génn bi dem bitim réew dellu si xam réew mi comme moom yor ay employé investir suñu xaalis mu yaakaar ne moomam nit ñi ba day foqar ci nguur gi nguur gi Macky Sall bu ko foqartee na nit ñi génn rayanteeg moom maa leen ko wax maa ngi nii njaareem nekk ak moom njaareem laa wax de te li may tay lii laa koy wax tey maa ngi nii jurbel maa ngi moom a nekk jurbel nii tay Macky Sall bu foqar cee nguur gi yéen waa Sénégal génn leen à tout instant ci quatorze régions yi na réew mi tàkk mais duñ ko nangu kenn du ko nangu kenn du ko nangu parce que xam nañ élection ni muy demee xam nañ bu baax a baax a baax a baax élection ni muy demee xam nañ aussi poids politique u Macky Sall amul vingt cinq pour cent ci réewu Sénégal ñëpp ko xam Sénégal koo ci waxal ñu ne xam nañ ne Macky Sall nit ñi bañ nañ ko waaye day sàcc xam nañ ne nit ñi bàyyi nañ ko waaye day sàcc pour lan ñuy nangu loolu pour lan ñu ñu bëgg ñun ñu dugal lool ci suñu bopp yi pourquoi mobiliser wu leen jeunesse bi mobiliser wu leen jeunesse su réew mi mobiliser wu leen jeunesse su PUR mobiliser wu leen jeunesse su PASTEF mobiliser wu leen ay patriote ngeen taxaw leen ci seen ay bureau de vote jàppalante leen bu amee bureau de vote boo xam ne wala centre de vote boo xam ne membre Pastef dafa nekkul wala membre réew mi keneen ka ca des na ko fa nekkal nañ jàppalante Macky Sall pare na mbokk yi pare na pare na gëm leen loolu pare na dañ leen di jéem a nax nag waaw pour déwlo leen si waaw ah, moom da koy saaj day xëy déclaré fii amul benn déclaré fii armée bi armée bi ci côté peuple bi la nekk gendarmerie ak police ci côté peuple bi la ñu nekk nekkuñ ci côté Macky Sall de Mame Mbaye Niang bi mu fi waxee waxi waxi dofam yooyu ak ñoom Cissé Lo armée bi dañoo taxaw ne leen eh ñun armée bi armée bu républicaine la armée du Sénégal armée bu républicaine la même bu nommé les chefs d'état-major généraux nommé les généraux aussi nommé le haut commandant de la gendarmerie on s'en fout armée bi ci boppam mun leen a génnee leen ci seen i caserne di foqati nguuru Sénégal duñ ko nangu de armée bi ci boppam pare nañu lu tax capitaine Dièye ànd ak Idrissa Seck da ngeen a yaakaar ne capitaine Dieye prévoirul loolu capitaine Dieye prévoir na loolu capitaine Dieye am na relation yu leer a leer ci biir armée bi jóg leen ngeen xeex fii nguur gi kenn du ko foqati pare na nguur gi Macky Sall mënu koo foqati pare na pare na day dem yoonam pare na il va partir dès le premier tour baal nañu ko wax dès le premier tour Macky Sall va partir les sénégalais ont décidé Touba dañoo décidé pour jële fi Macky Sall Diourbel dañoo décidé pour jële fi Macky Sall Dakar dañoo décidé Thiès dañoo décidé Saint-Louis gis ngeen ne Baraya ak la muy dem ak ñëpp àndut ak kenn dañoo décidé gis ngeen si Ziguinchor la fa xew dañoo décidé engouement bi fépp la na ngeen xam ne fépp la ci Sénégal Macky Sall pare na il va prendre ses bagages il va partir munu fi indi insurrection munu fi forcer munu fi def dara nous avons des relation ci biir armée bi li ñu war a wax ak ñoom wax nañ kook ñoom ba mu leer nañ armée Sénégal armée bu républicaine la kenn mun leen a forcer loolu di leen def loolu jaaduwul. Macky Sall bu fi taxawee déclaré loolu wala ministre de l'intérieur am taxaw déclaré ko Sénégal nañ génn dëkk bi na tàkk bu dara fay ba mu buubi bagaasam daw loolu mooy mbir mi. mais kenn du ko fi xaar di ko seetaan muy foqati nguur gi duñ ko def duñ ko def xalif généraux yëpp nag ñoo ngi leen di interpeller Macky Sall duñ nangu mu fuqati nguuru Sénégal gii suñu ndono suñu ndono Macky Sall du ko fuqati suñu ndono Macky Sall du ko fuqati gënuñu ndey gënuñu bàyyi dañoo liggéey ci réew mi jëf ci loo xamante ne bii suñu tuur bu ñëwee dañ ko war a jël def na sept ans sénégalais yi doon nañ ci doyal nañ ci moom na buub ay bagage sam mu dem yéen xale généraux yëpp nag lañuy ñuy la ñuy attirer seen attention Macky Sall du fuqati nguur gi duñ ko nangu de duñ ko nangu te bépp jeune bu nekk ci réew mi am jom am fulla am fayda bëgg lu baax waroo nangu loolu di ko seetaan duñu ko nangu waaw duñu ko nangu suñu victoire Macky Sall pare na moo leen ko gën a xam xool leen li topp nit ñi ci dëkk bi xool leen nit ñi ni ñu mel ci Sénégal dem leen Ziguinchor Ziguinchor fan lay jaar Sonko ak si Seck Macky Sall fu muy jaar Sonko ak Idrissa Seck Ziguinchor ak si fan la leen di jaar ak Atepa Macky Sall fan lay jaar Ziguinchor Sonko Idrissa Seck Guirassy Atepa Macky Sall fan lay jaar Dakar Pape Diop ah Abdoul Mbaye Khalifa Sall Malick Gakou Ablaye wadd fan la leen Macky Sall di jaar Macky Sall fan lay jaar Thiès Macky Sall fu muy jaar Touba ah, waaye mbokk yi seenaa ne waaye pare na pare na kaw Kaolack c'est déjà pris c'est fini ay da mbooj sax fi mu toll nii ay étudiants ñëw nañu ànd ak Idrissa waaye waaye ma ne Macky Sall c'est fini il a perdu luy nit ay Diourbel fii nag remplir stade taxut nga jàng xam ne gañ nga dara waaw loolu nag il fallait que ma wax ko gën leen a yokk courage jeunes yi am leen jom yéen waa diaspora bi yéen waa diaspora bi jóg leen voté leen utile woote leen seen waa kër yi xamal leen la réalité xamal leen li xew Macky Sall bu foqatee nguurug Sénégal nit ñi bàyyi ko ci danañu toroxal ay jaam la ñuy def nasaraan yi la ñuy delloo ay jaam la ñuy doon mbokk Sénégal lu mel ni mi di laa leen wax nag ñun nag duñ ko nangu de jël nañ suñu ay matuwaay jël nañ disposition yi ci war yépp Sénégal fii élection yi résultat yi danañ ko sécuriser xaar résultat yi ba mu génn ñu jël suñu victoire bu bëggee jàmm nag na def nii moroomam def moom Macky Sall bu bëggee jàmm na def ni Abdou Diouf defoon vingt heures mu woo Ablaye Wade ne ko gañe nga na def ni Ablaye Wade defoon vingt heures mu woo ko moom Macky Sall ko ma vingt une heures ne ko ñëwal gañe nga bu vingt heures wala vingt une na woo sa sekk ne ko kaay jël sam réew ñu jàmm na ñooy ñu bàyyi ko moom mu dem ñi ci des nag te sàcc alalu réew mu ñu seet ko waaw maa ngi ñaan usmaan Sonko maa ngi koy ñaan na jéem a xool vote utile na jéem a xool li nga xamante ne bi mooy li enjeu yi nekk ci sunu kanam ngir ñu boole doole yi ngir dimbale Idrissa Seck ñu daaneel Macky Sall dès premier tour xanaa xamu leen ne Ousmane bu àndoon ak Idrissa Seck rek mu daanu au premier tour xamu leen loolu Ousmane Sonko bu ànd ak sa Seck mu daanu au premier tour Macky Sall premier tour laa leen wax premier tour mu buub ay bagages sax parce que Ablaye Wade day obligé peser ci balance bi premier tour mu dem bëgg nañoo raxas Sénégal bëgg nañoo raxas Macky Sall Ousmane Sonko waa PUR bu nu jógoon tey dem dimbale Idrissa Seck rek wallahi azim premier tour Macky Sall buub ay bagaasam waaw forcing nag du fi am forcing jeex na sénégalais yi ña doon dee 88 ñi ngi fi gënuñ ñu ña doon dee 93 gënuñ ñu ñi fi dee 2000 ñi fi dee 2007 ñi fi dee 2012 ñëpp gënuñ ñu. bu ñu naree force élection yi lu ëpp loolu dana fi dee te armée bi danañ taxaw jël réew mu jël nguur gi ñu lijjanti affaire bi mais du ñu nangu forcing forcing non forcing moom jeex na bu ñu leen ko gëmloo bu leen leen faale munuñu leen a tiital man maa ngi nii ak ñoom ci dëkk bi di circuler maa ngi nii ak ñoom jurbal di circuler mi ngi jurbal maa ngi fi nii kenn tooñu leen nañ def seen yëf nañ luye seen i nit nañ luye seeni i xar nañ luye seeni i seen i bëy nañ leen joxe tiset nañ leen def lépp bu leen neexee nañ jël seeni i xar ak i bëy luye leen solal leen di tiset di leen yuuxuloo ñuy mbee mbee ca stade ba ba ngoon ba vingt une heure amul benn problème après ñu dem ñibbi mais loolu du tara ñu buub seen i bagage dem waaw ans aw maa ngi lay bëggee moom frère waaw maa ngi leen di gis waaw eh, Maria ah Geda Kan ah, Dan bëgg naa la bu baax yéen ñëpp ñu ngi leen di wan loof di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi hmm? euh, Baye Dame Diakhaté message boobu lañ leen bëggoon jox yi ñëpp pour ngeen ngeen ngeen véhiculer ko ñemeloo leen jeunes yi takku leen nañ takku takku leen gëm leen seen bopp gëm leen seen bopp waaw non man tooñu ma kenn gànna ku ma bëgg a ray ñëwal nga sama kër nga ray ma ku ma bëgg a ray sama kër nga may fekk nga ray ma waaw mais man ku ma nar a ray ku ne bee boo boo ma dabee rek dóoral bal ma ne këlëb ma ne ku ma bëgg a rey ku ne fii laay waxe vidéo laay ku ma bëgg a rey ku ne ba ma fekkee dóoral bal ma ne këlëb man soo ma boo boo moyee bu ma jógee dama lay ray waaw man je ma suis préparé ah je me suis en conséquence man du ma du ma cuune du ma du ma mbaamu kenn man man du ma seetaan benn sàmba booy di ma kar di ma rey du ma ko def man boo dajeeg man bu ma la xàmmewul sax bu ma la mënee fetal dama lay fetal billaahi wallaahi tallaahi su ma soo naree jëm si ci man ma xam ne danga may rey barke Sëriñ Bamba dama lay rey awma ci lu ma ciy xaar awma ci lu ma ci lu ma ci lu ma ciy nattable man du ma du ma jaamu kenn du ma jaamu kenn Macky Sall xam na ne pare na réew mi moomu ko ñoo ko bokk dañ ci am wàll ñu am ci wàll suñuy bàyyi na fi suñuy ndey na fi ñu liggéey ci réew mi am fi juddu nag gënaluñ ñu tus faalewuñ leen yoruñ seen dara waaw jël seen ay transhumant nag ak seen ay nit rangale leen ñuy nekk fii di liggéey ñu da leen a faale ñàkk nañ perte nañ jóg leen ndànk tranquillement dem vote ji 7 heures du matin ñu vote balaa 18 heures waa ji pare bu bay bagaasam dem jeex na jeex na loolu la teel leen a vote ji waa ji dem yoonam waaw loolu kese la waaw ñu ngi leen di tuubal bu baax di jéglu